buntu kër gi ubbeeku na boo fi naa ne yow la soo demoon duma la dal soo la jëlee woon réeru la yaa samay sœur laa yemale ak sama yaay yooyu arab donc tuddee kinaayatu talaq du passé sariya teniru ci compte mu ngi toru mu ngi tenir compte ci sariya sharaha shaaf lay doon ak raa ak adam dellu bu la neexee def ci yaa def adam dellu fexel di fe mag chariatul kalaan chariatul talaax dafa am ak kinaayatul talaax riñaan gi nag ne bi daf yàlla daf ko wax kalama maanaam daf ko wax sharia subhaana la fi asra bi abdihi jàngu leen loolu laylan la am layla ñaari masque la amul lif ak laam xam nga lu juub loolu faqat lif geeg laam dóor ci tanwin day wane ne guddi gi jeexul as lëf la ci guddi gi waaw bu indi woon li fekk laam rek guddi gi tuula kon nag ba fi jógee ci géej dellu si ci fajar te bàyyi laaj naa rek am na lu mu bu ne way nañ ci nekk way nañ bi rek xam nga lu ma lu ma dox ci way bi دمنا وجافا صف باقي وجاف صف باقي مولاء الشائرة وكان له قبل القطاف قفول وجاف ترى سنة صف باقي جرم ياري ديلي اسمع لن تدي ديلي ديلي مو يو تكلي تكلي تكلي تكلي خمغي ياري سيرك سوكو تكلي سانغوكو ام بوغين yàlla teg la juróom-ñaari benn feeñul fet kaana te nekk na loo ñeel Moustapha Xafoolu ñibbisi xabal utaasi ci fenku faja nabi nee na de maa ngi fàttali ko loolu mën naa génn garab gësam ko boobu maa ngi ko albra mais bi ma la tourné garab gi dalagul te après conversation bi ak yàlla may nañ ko 15 minutes de plus ci wa audience am na ko wisital àjjana mu wisite àjjana tout gis na kër Mansoor Mbay gis kër Ibou Sakho gis seeni kër ndeysaan te ne bu rafet la yéegeeg yàlla la giseeg moom na bi ko rafet la woon nag mu jaari bét li li tax mu jaari ji baytul maqdis yi ñetti xiira lañ ci wax téere yaa ngi laaj ndax yàlla mënu woon a fa benn bi ci màkk yóbbu ko pourquoi mu doxoon moom kilométrage si tol noonu doon ko fab am loolu jaru laaj min masjidil araami ilal masjidil aqsa door ko yéegal ñu ne ndax dafa tële woon yéegale ko màkka téléphone bi joxoon naa leen ko ak déet moo di dafa doon bëgg a woon gaa yi li ñu xam ci distance na bi def ko benn bëccëg ñu contrôlé ko ne wax na dëgg pour ñu mën cee gëmee na ci des benn deuxième bi fa nañ ko déshabillé basarié baa ngi yem ci baytul muqaddas am na jamono yoo xam ne ci guddi googu ñetti melo la mel am na jamono mooy wax ak niiw yi kuy wax ak niiw xam nga dundatoo bu mu gént moomale leen jiite leen mu nekk ci àll ba faqiya romb ñooñu dugg ci biir malaaka yi ñu soppeeti basariya bal ba faqiya def ko ci groupe bi malaaka yi di wax malaaka yi nekk malaaka dem ba malaaka mel na mënatu dem ñu def ko nag malaikal malaika jibril la seen pasara mais jibril daf ko ne fi boo ko passé benn jéego leeral araf te ñaar yëpp am naa doxal yow kenn su ma jiitoo lakk soo jiitoo bu ma toppi sa kaw lakk te jibril ay sangi malaaka yi isa samsa kubira waysa nujumun kadarat waysa aljibalu saharat waysa alhisaru hutilat waysa alonsu usirat waysa albiaru sujirat وإذا النفوس سئلت وإذا المعودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء قسطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أسلفت ألم النفس ما أحضرت فلا قسم بكنس الجوار كنس والليل إذا حصحص وسب إذا تنفس نجاق بدق جبريل إنه لقول رسول كريم في قوة عند سرعة مطاع سمعني أمين patron bu mag booboo dem ba ñemeñ ci la teggi tànk d'accord fii bu ma ko passé rek leer as rek ma xam amina ila lo ma xamal naa lo wa inna lana nekkee ci kanam lakk su ma làkkoo ci ginnaaw leer aras lakk ma jàllal yaa fi sës xam nga na garde yi def malaaka yi ilie yi gën a foor xam nga gendarme yi sës sës ci Abdou Abdou Diouf ñoo gën a foor ñi ci def ñu sës ci Habib Thiam ñooy patron ñu sës ci teewul ku ci nga garaat maanaam garaat bële boo tolloo ki garaat te mu ne fële nga ne fii xam ngeen tuuti différence ba ci sàndarma waaw kañ ah, waaw waaw waaw waaw lan yem foofu gaa yooyu nekk ci pays affaire ba ilahiya ñoo génn naan Jibril reculer arrière naa dégg dellu ginnaaw c'est sa place tey dellu ginnaaw Jibril dellu ginnaaw xam nga bi ñu noppi ci Jibril dellu ginnaaw lu ñu ci نبي تنزل نا يا جبريل محمد ابنه نبي نخش ليري بنا يدل فوف بغ سغ سمي بطي مصلون دا بابا تابي وسي سي لاي دوخ تابي ياغي نوي ني نوخ دي ديم بيتي واخ بي مو بن لاني واخون موسى ني واخ موسى با يالي ديك موم داف كن سمي سي دال فاحلان عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني وأقم الصلاة لذكرى إن فاس أدية أخلو فعل لتذكر نفسي ما تصحى ولا يشدنك أنا من لا يؤمن بها فتضايع فترى دورك وما تلك بيمينك يا موشي بوكي gisee سيني دين ñu deen لن يدفني ما خانا نون ني nii ma xanaa ني نون دالة yi def catholique yi nii ñun dal yi la ne lu nuus bot ñu ne ko continuer ak sa bot ci kaw terrain ci kaw pappe wurus yi ba Alaaji Malik ne Moussa lañ doon weranteeg ne kon profet na ne ne bi du moroomam Moussa ci suuf la dee yàlla ñu ne ko sumil say dàll ne bi ci kaw asamaan ci pappe wurus ñu ne ko bul sumil say dàll mu ne wama amara mawlaahu kan mawlaahu yàlla santul kan loo ñeel ne sant ko lan qul an ahlihi sumuy dàllam ñu ne Maodo dafa am kuñ ko santoon mu ne ah du ma tudd jàmbur de waaye kesil waa di waa ji woon ci xurma waa ji woon ci xurma daara ni Moussa accident daf ko dal mu rey nit ci gàttal reye ko ci territoire bu ñuy wax xaayira keex daw fa dem Palestine Madiyan fekk fa góor gu mag bu ñuy wax Suhaybu nettali ko li ko gaar dama ko dog Suhaybu ngi am ñaari doom yu jigéen xam nga yonent yi daf ci am ñoo xam ne jigéen rek la ñu jur juruñu góor am ñu jur góor rek juruñu jigéen aw kañ yëkkati ko noonu day nelaw góor xam nga ne bu màggee dina xam luy lislaam de tuuti ku ñu indiwaale mu xool lamp yi gis nit ñi bari su màggee sax da koy da koy germent moo tax na bi ne wa kullu mawludun fi fitratin fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunaziraanihi aw yumajjisaanihi nee na ku juddu ci sama xeet bi rek jullit nga sa papa ak sa yaay mi la élevé ñoo lay dugal ci yëwat mbaa ci nasaraan mbaa ci majjus ma dem de waaw ma ne ndogal ma dal avant mu àgg nag neuf kilomètres sa agsi na ci benn teen teen bi fi la man di yenn yëpp di di wëggi ñu bari gàtt lañu mais pare siyaan la siyaan bu ne dafa am groupe buy wëgg deuxième topp ci troisième topp ci ku wëgg ba noppi da ngay upp ñu aye ñëw ubbi Moussa agsi fa une heure et quart ne rabbi inni lama ansabtu ilayhi min sa faqiru wéeru ci taati garab gi di leen xool seen ñaari njagamaar yu beru mu ñëw ne leen yéen du ngeen wëgg ñu ne ah kañ wëgg ñu ne sunu baay dafa màgget te jurul doom ju góor te kii fan leen da koy ubbi balaa noo wëgg sàmm see wëgg ba jeexal la ñuy desal ci mbar ñu faraatu ci wëgg Moussa ne leen léegi ngeen wëgg waa ko dem nag sëq moom kenn naka sa feet yonente dañu bari doole wax naa na sawa yi ngay gis ñu di ko jël ci fa ci oto yi naan deux heures trois heures quatre heures benn naaru góor bu nekk loolu mooy naaru góor benn deux so dooree ñaari naari góor la yor quatre so dooree ñeenti naari góor la yor mais benn naari góor bu nekk dooree fanweeri xale lu góor yu dara tuuragul def sa yor Mansoor jënd jinne ju nekk dooree fanweeri naari góor la am wala yu wu nekk dooree fanweeri jinne la yor wala yu simple gisuloo xaadi iyaan wala yu wuree la ba muy voyagé ànd ak taalibeem dem ba ci tournal seen àddugal bi tëru ko kii yam mu okk taalibe bi ko gars yi saay saay si la waaye léegi ñu daw ne safeet wàcc fas wa tóngu fas <laughs> wa digal yi naan kalang lang lang kalang lang lang <laughs> ah dégg nga ba ñu dawee man suñu xam nga lu wax taalibe bi kon dañu foog ne du ma nit kat ma ne ko boo demee fit ni dëkkam nga nit ko tongob naaru góor wala yu doole fanweeri jinne la yor benn yonent bu nekk doole fanweeri wala yu la yor na bi yor doole fanweeri yonent ndax mu bari woon doole fa rafet bari xel bari xam-xam bari doole am fit bari ngor am tagg wu rafet ci xol kenn melul ni moom laqad jaakum rasulun rasulun min anfusikum waaye min anfusikum it baax na xafisun ali ma anittum xarisun aleykum bil muminin raof raib fa in tawalaw fa qul hasbiya allahu la ilaha illa yaa ngi dégg de xale daal di ñibbi seen bàyyi ne teel ngeen a ñëw tey ñun xanaa wëggu leen gan xale lu góor moo nu wëggal kenn kenn ko papa dañ ne loolu doxandeem da jël mbindaan mbindaan ma ci gën day bari doole te jub mooy fekk bi nga xale bi ne gananu wëgg daf ko ne dem leen oo ko mu ñëw ma fay ko teraanga ñu ñëw nag jël sikk ba ñu àndee ak ñoom di dem xale baa ngi sol robb léeg-léeg ngelaw li naawal robb bi boom yi bëgg a fay yonente bi ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko xaaral ma jiitu xaaral yoon bi waaye foofu xeer su ma demee ci ñaari yoon dinaa taxaw nga sànni fi ma war a jaar moo ma gënal di xool sa yel yi moo tax moo tax doom ji ne ko papa istajirhu istajirhu fa ana xayra man istajar xawi amin papa def ko mbindaan mbindaan ma jigéen day am doole tu jub naar nag ñu fiir lañu bàyyi bi na ko doole ji xam nga ko njub gi ko la ko xamal mu ne ko bi nuy ànd te sama roba bii ginnaaw for xeer nema naa jiitu moom mu jiitu xamul yoon bi ay baage ci ñaari yoon polome ma sànni fi mu war a jaar ci laa xam ne ko jub mu ne ko wax nga dëgg daal di ko rek ne ko doom ini uridu an an ka xaqa idab na tayni ala an tuajirni famani hujujin fa in atmamtu afan fa min indika wa uridu an ushaqa alik ko seet ni may dégloo ni may dégloo baaxul soo demee ci jàng ngi neex yow nga ne balaa balaa ma ko jékkoo gëmm booy gëmm di nelaw parce que ku gëmm noppi nelaw gëmm noppi nelaw xam nga ko bañ a nelaw na ngay def xulee salaire yàlla kenn mënu ko fay nit gis nga ni mu liggéeyee nit yëpp automatique la ñu ngi naan oto bi automatique la moteur bi automatique la di ko naw nit a gën a fort yooyu te yàlla daf ko bind ci automatique waaw xamuloo ko su fekkoon balaa ngaa xef ne nii balaa ngaa gëmm ne nii dafaa sotti ay rasool la wutal ay rasool yu sew ba ngelaw ne fuy ba nga xalaat ne da lay fatt yi na pat mu ñëw mu tegu ci kaw nga fittiwaat mu sikki sa bi bu fekkoon booy dox da nga koy téeg sa ñaari tànk teg ko ci palafante bi day sotti si yëpp c'est automatique yëpp laama gi ne jigéen mën nañ koo can lu mu jariñoo jëriñoo ba wér waaw nga can jigéen lu jigéen ja jëriñoo wul te ba wér boo ci d'accord rek kilifaam ah ma sàmmal la dama bëgg nga sàmmal ma juróom-ñeenti at ma may la sama doom soo gis soo gisee sax ku jur bu rafet te yàlla xiir ko mu bëgg a pooj yu neex te nga mën a fecc mu ne la defal ma juróomi pocc te jël ndaw si day dagal da ngeen defe ne jigéen balaa ma wér rek mu jariñoo mu jariñoo mu jariñoo can déedéet benn ngoog te yónnante may de beneen maam Adama lan la cane awa salaatu ala nabi salaatu ala nabi caq la la rajo la montre loxo sëy ba wéer na ci la ñu juddoo ñun ñëpp ma jàllale eh, dama bëggoon jël la mbindaan nga sàmmal ma neuf ma may la kenn parce ma may la kenn ci xale yi soo sawaree ba def ko dix it sa coobare la man duma teg nit dix ma ne ko indi contrat ñu bind ma ne ko Moussa ko kat balaa ngaa bind daal yëgal ma yemee ci huit bul ñeñ su ma sawaree bàgg ci dix it sawa bindal loolu mu jox ko mu ne ko demal na ca pantere ba la jël fa yet yetu Moussa bi ngeen di dégg foofu la ko jëlee fekk yet yëpp kaa ngi juuri Moussa dem di jël yet yetu Moussa bi ci boppam tëb ca yet ya tegu ci loxol Moussa fekk ba way góor gi sooy bi gisatul mañet bi nga fab mu jox ko mu fóon ko mu xeeñ yat bañ ko noonu ki koy jël yonente lay doon mu ne ko doom waxuma bii delloo ko fa mu delloo ko fa ñëw ak loxoy rek moo ko demal ma yet néeg bi yet yu sote ci loxo mu ko delloo ko waxuma bii waxoon naa ko xëy na doom ji jigéen ji ndaw ji xam nga moo tax takk mu jëna leen takk ñoom ñaar ba mu booleeg ko bokkal ndey ak baay dagan dagan na parce que dafa dafa sàmm baagal ñu may ka ka mu xeme moom ñu may ko keneen ka fekk ku ndaw ke dàq te jabar rafet daf ci baax jigéen amul ayib lu ñaaw képp nag bu rafetee amatul ayib benn ayib bu yeboo mën a dox bu yeboo mën a sàcc bu yeboo mën a fen waaye na rafet rek fii di di wax naan jongama ñàkkul daaguwaale dañuy dalal xelam ku ñaaw ku ñaaw it ñàkkul daaguwaale ku ñaaw it ñàkkul daaguwaale c'est vrai kañ mu ne ko daal ki taxoon may sàmm du kii mu ne ko amuñu habitude di mayee rakk bàyyi mag mu ne ko kon ma engagé waat renouveler engagement bi pour jël ki ci def محمديزا naka sama yaay ci saay saay bu bari doole laa ko bàyyi woon fii xaw na te gëj naa fa fukki at dama doon ñaan permis seeti sama ndey mu ne ko bi ma lay may xale bi boolewu ma ci woon nga dem ak moom waaye sa jikko neex la ma ànd ak sa jabar mu jiital xale bi xale bi di jigéen yi riir ñu def treize jours ci àll bi riir yoon woo gëj fukki at asamaan si taw ëgg seddu guy ndaw siy lox aw mat dikkal ko mu saak jabar yi rek ci àll من مكة إلى بيت المقدس كوكو كافر لك من بيت المقدس إلى سدرة المنتهى كوكو بيدي نافق بس كدي القرآن دفك تدى صريحة دي دفك تدى شيء إلتسام إلتسام بدلالة الإلتسام رك لتكدري دلالة الإلتسام أمر دولك أتى منطقة البيان دولة بصريحة سنة في جبل بنتكر كامو بفين رأيونا kooku kinaaya la du sariati talaq sariati talaq kañ yoonam laa ëkkule ba nga tudda faak si arab seet ndeem olof nga maa nga tudda sa sànq ak la mara xafara ndeem arab nga ko dafay xam يلا وقلنا سبحان الذي أسرى بأبده من مسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى وقل له دلالة التسام لوح لنريه لوح سبب في آية bu bu bu ñu àgg woon ci laxas raaxa laxas raaxa raaxa ak nuri bokkul wan la ak gis bokkul ma wan la ak nga gis bokkul wan nañ la ba tàyyi loo gisul gis nga ba tàyyi luñ la wanul weer waa ngi taafee dana fu mu féete ci garab gi waaye xoolal ni guus man de gisuma ko nga xoolal ci taax ci taax mi nii kooku mooy lii waaye ne bi nag dem na ba xam raax parce que si daaj naa def ne bul way أطاين تقاوى خيالة لبو ابتداء أسرى به له تصريفا لمكنته بكين أترى أترى هذا اللي نريه لسايدة فن مالي يبون جروان إلا نعم بينا كيسنا كنت جيدا صوتنا أم ديت بنا بيأجي تبي بتاعه خمول لمو نيو يلا يلا ساني تخلي من أطايات لله شكيات لله تيبات سلامات لله ففولي أبنيو يلا bant te tegtale góor pire yàlla la ñeel këy yi ma romb tey ngand yi ma gis tey jamaa yi ma romb tey beqotak mawlud yi ma yomb tey billahi attahiyatu lillahi sakkeeti jëf ji sell ak taggawu sell lillahi ñeel na yàlla salawaatu tawaxlu pour julli juróom lillahi ñeel na yàlla loolu la nabi nuyoo yàlla noppi yàlla fay ko ne ko asalaamu aleyka yow itam aywa nabi yow la wax waxu asalaamu aleyka wa rahmatullahi wa barakaatu malaaka yi ñëwoon ci réception ne bu ñu ñàkk nan profité gaaw daal di wax ne ñoom it ñu nit asalaamu alayna kat wala ibadillahi saalihin nañu fi nekk mu ne ko yóbbuwaale ko ñu di ko def ci taay yi ba sëriñ baa nga yem ci sidratul muntaha ci ci baytul maqdis maanaam wax naa leen fànq bi muxtaar laa sañu si di muxtaar ma takkaraara ko ngir leeralal leen li tax yàlla newu ko coppet ci màkk dema moom asamaani juróom-ñaar dox ak moom ba baytul maqdis dool ko yéegal benn antandi mboolem suuf suuf sépp ba mu daj baytul maqdis fi gën a jegeñ asamaani juróom-ñaar moo tax ruu yi buñ leen ëffee fa la ñuy dajee ba yemb dara monte dem rek la ji ñu ne na fi na fi jaar comme mooy pays bi ñuy réglé na fi jaar dëgg fi tànkam ndax dangar ji wàññeeku wa naasiaati xarxan wa naasitaati nastan saabiqaati sabqan falsaalihaati sabqa المدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تطبعها الرادفة قلوب اليوم يشن واجفة أبصارها خاصة يقول لها إنا لما دولنا في الهدير إذا كنا إذا من منخنا قالوا تلك إذا كانت الغالة فإنما هي سيد الرائدة فإذا هم بساحرة ساحر ما بيت المقدس منصور خم قلنا ساعتك خم خم وليتنا ساعتنا هذه قد تسبقنا groupe lañu yu bokkul service. waaw góor a waay. kan la. seen jabar ya def lu baax. lii maa ko jëmee ndar. ci ruuwu yi. malaaka yi koy jël si. bokk ñoom malaaka yiy jullit yi. ci lu di lu dijj jaarale ko ci fu sew nocc googu tëgg yi nocc première nocc ni muy dañ ni muy seere noonu la rocc ruu yéefar di méttee ci yéefar day mel ne taxas ko ñu dugal ci sa gémmiñ suuf bippandoo koog doole naa seete xaar-xana ba ba naa si aat ci borom malaaka yi nga xam ne ñooy bipp ruu yéefar yi ndax xaan te bukk naa si na san mooy ñiy jël ci ruyu jullit ndoy mel ni weñ goy rocc ci sunguf sunguf soo teg nga seen ci rocc ak weñ yëg wëñ rocc gan na muy oyofi noonu la rocce ku jullit di oyof te it ndagam day jorim ji bi pratique plan àjjanaa nga ci soo ko gisoon gis sa kenn ku ne ci ñun bu àllaaxira kenn du la yóbbu sa yaa yóbbu sa bopp yàllaa ko wax ci ku ne yaa ngee xamee sa kër caaji na ni nga xamee sa kër fii bu mi dee ba ñu wàcc ci bureau yi diggaay dañuy joxante ginnaaw ñu aw fii ñu aw fi ngay jàddal koñ bañuy dugg ci kër jàddal koñ bañuy dugg ci kër jàddal koñ bañuy dugg ci kër tourné gauche à droite na yoxos ci kër fekk fa sa jabar ku la ne fii la doo jàppale woo ko jàppale woo ko borom tett bu boobu ci xel yi mooy tett nit ñi ci àjjana ku ne dem sa kër tasaabiqaati sabqan xam-xam mooy ñiy ëkku amuñu service ci rocc ruu waaye ñu ngiy rocc ñu ngiy ëkku ruu gu ñu rocc rek ñu ne tasak moom sànni ko jaanama dem fële jëri jëm ruu gu ñu rocc dem ajjil na jëm ñu ne tasak moom sànni ji ko ajjil kenn leeru malaaka yi kañ ñi ci am na groupe bu amul service nag parce que amuñu jëmm ñooy xaalina am na malaaka yi tudd xaalina amuñu jëmm dañ leen def leer rek ñu ne bàpp bàppaara amuñuy mbagg amuñu laar amuñuy tànk ñooñu ñooy ñii nga xam ne excellence service lu ñu pour toujours bokkuñu ci lu dara lu yàlla defu day wane euh, day wane كما خبرناه منابر أتى هذاك الهرج القديم لشمس ينبغي لا أن تدرك القمر ولا ليل سابق النار وكل في فلك يسبح قال سنة فتباخي سائرا مولاه على كونه شاعرا مولاه أرى بك الوقت guddi gi ci sëli na mooy fajal xaw si daaj Malick nag dimbale nu classe ba wàññee fukki bunt ñaar ci la indi lisraaxu bi li mu ci wax kenn waxu ko kenn kenn bindu ko ku ko bëgg a dégg piir piir ci téereem bii ngay ñëw juróom-ñeenti bayt la ci wax sax parce que dafa dàmbale lisraaxu bi ak xijra koddaay gi la boole gisaaw benn bunt moo tax moo sut ci mii mimi yi ginnaaw li daay yi dóor mi Moussa ne soxay bu dama bàyyi woon yi sama yaay saay bu am doole te naa fa may ma permis ma dem mu ko demal may ma la woon jabar pour nga yóbbu ko waaye gis naa cew ngor gu ma sëkk yóbbul sa jabar mu dem ba ca àll mar feeñu ndaw si asamaan si taw ëgg mu liir yoon woo gën fukki at xamatu ko yàlla nag feeñu ko ak leer mu defe ne leer gi safara la Mansoor léeg-léeg nit am fu mu yaakaarul dara lu ëpp la muy am ca fa mu yaakaar dara Muusa safara la foogoon ne moom lay tibbi dem fa faam ak lu buutu daf ne inni aanastu naaran seen naa safara unquzuu bañ maa dogale bañ maa soññ dañuy réeroo um gusu daju leen fi bu leen fi jub ini anasu naara laa li atiku minaa bi xabarin wala atiku minaa bi xabarin baa xaa raa bu tombul mooy firi gindi ku la wan yoon bi fii la xabarin boo amee raa bu ñu tombul mooy xal wa ànd ak gillinte ma mën cee taal waaye waaye utal leen jong ma yu rafet yi mbugg waaye fu ñu toog xaal utal leen waa ji mel ni safara toog leen fi bu leen déranger ma day jur juyaaloo mbaa rombante unkusu إليك إنك بالوادي المقدس الطوى وأنا اخترتك فاصطنع لما يلهي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني وقم الصلاة لسكي إن ساعة آتية أتدعو بها لتجزي كل نفس بما تسعى ولا يسدنك أنا من لا يؤمن بها وتضعف فتضع دولك وخما تلك بيمينك يا موسى léegi affaire am ah yetu Moussa woowu fa la doone foofa la doone li boo gisee officier yi gaaw ku ne di yow yet te yet Moussa Moussa lu te lu ñu gëti Moussa yetu Moussa wa bu ko sampee muy ker bu maree sax jàppale muy ndox mu ñu galaasi su ko tegee suuf muy palaati yàpp buy nelaw mu wattu ko mus naa di nelaw ay sàcc ci bëgg sàmm ci xar yi yet waa xeex ak ñoom ba rey ci lu bari ñu ci def taw xam nga yet moom nekkul a xeexal xam nga fooy dóor ci moom bu jógee rek bu dalee mu baax tel yàlla xam na ne yegg li mu ci nar ca firawna mu dëgal boppam male su ko wanul musa fii ba musa gis ko su ko demee ca firawna mu doo ko faa feeñu bi firawna tiitee mu tiit te tiital nit tiitit amatul ndam yàlla ne ko màtti ko bii mi ni kay Moussa ne la ci sa loxo ndeyjoor benn waay bu tuddoon Moussa taful benn waay ñu dàq ko mu ne ci jàkk ji sarax fekk ñuy julli गए इलेमान जी जीते